salaamaaleykum mbokk internet dakar net point com euh, comme ni ñu koy defee saa su nekk tey dañoo ñëw di leen dalalan daanaan euh, di Père Max ko xam-xam nga ci làmb moom bu waxee rek téere la ci làmb tey kooku lañu dajal euh, fas yéene waxtaan ak moom duñu def lu rek jox ko kàddu yi après ñu dikk ak moom ci waxtaan Père ñu leen di di la ziar. waaw di leen fay rek di rafetlu teewaay bi liggéey bi am na solo di leen ñaanal ndaw moom buy yëngu da nga koy ñaanal li muy yëngu yàlla defal ko ci ndam pare naa nag pour tontu laaj yi jërëjëf. waaw mi ngi noonu kooku mooy euh, Père Max dañu def lu dul rek waxtaan ak moom mais Père li ñu njëkk dugg mooy làmb keroog bi a Sène ak euh, Lac de Guiers nga ko gisee woon. keroog euh, ni ko ñëpp gisee laa ko gisee rek ñoom sax xanaa kontaanuñ ci ni ñu bëree ndax match nul lañ sax nit ñi kontaan ci ñoom kon bu nu bëree ñu jox Lac de Guiers victoire par avertissement ndax règlement moo leen tàggale ñu jox ko ndam ñu ngi koy féliciter de passage. mais xalaat naa ne ñoom sax duñ kontaan ci ni ñu bëree keroog. mais ah, nga gisoon keroog amateur yi namoon làmb soxla woon làmb est ñeeku tey jii ñoom keroog bu ñu bëree woon mais même bu kii amul sax mais bu ñu bëree woon ba public yëpp kontaane est ce que loolu noonu nekkul li andiwaat làmb mais nii instant yi làmb per mi ngi nii de ñi gars yi ñu ngi koy jéem a moom mënuñu ko xaar fenn lu dul nit ñi bëgg ko rek ndax ubbee ba léegi miis yi ñu ngi yokk ci bëre simple ñi ngi xëccoo dat mënuñu am dat bi day fees del kon nag père gars yi euh, pare wuñ pour bëree bëree wuñu non kon dégloo wax bi dama ne la. ñoom sax war ñoo kontaan ci ni ñu bëree. match niil lañu sax nit ñi kontaan ci ñoom. kon bu ñu demee ba jox kenn ndam te kontaan nañu moo lay wane ni ñu bëree keroog amateur yëpp mer nañu. même ñi toogoon ci télé yi ñu mujj sàppe télé yi seetaanuñu. mais champion yi mel ne Lac de Guiers rek Eumeu Sène war ñoo bëre 45 xam ne songoowuñu. ah loolu jaaduwul mooy ni ñu bëre dama tënk lépp ni ñu bëree keroog ñoom sax waruñu ci kontaan ndax bu fekkoon loolu la ñu débuté duñu leen boole ci VIP li ñu wane keroog dañ leen xamoon ci fulla xam leen ci fayda bëre daan wala nga daanu moo waral ñu dem ba agsi ci benn niveau bi mais keroog ñoom ñaar ñëpp joxewuñu wuñu. ñoom ñaar de sa gis kan moo waroon dox ci kaw boobu. ku ne war a dox ndax ndam ku ne ko bëgg. mais daa am ñu ne Lac de Guiers moom la ñu daanoon te mu gën a doon xale moo war a bëre mais bëre nag ñaar a koy def parce que du nangoo moom it jël benn risque bi euh, ku ne xam ne Lac de Eumeu Sène it boo ko masaan dóor day xaru ci sa kaw mais ku ne xam nga ci pare na ne dañ maa téye mais daal li am solo mooy gis nañu ne ñoom ñaar ñëpp lañu waroon def defuñu ko donte ndam am na te ku ci ne am na ay vidéo yu ma gis ci yow wane nga ne dafa mel ni du man maa doon bëre moo tax d'ailleurs CNG bi pardonné wu leen dagg nañ leen xaalis bu bëree bëri ku ci mel ni la de guerre dagg nañ ko 2 millions 710 mille ama Sène ñu dagg ko 2 millions 610 mille kon moo lay wan ne te bu ñëwoon bëre am ku daan am ku daanu bon du ñu am avertissement yooyu ba muy yegg ci ñu leen di sanctionné Euh, bay leen di dagg 15 pour cent ci seen reliquat te it nag amateurs yi dinañ kontaan ci ñoom moo xanaa naa la ko léegi mbër mën naa daanu sax ñu kontaan ci yow exemple bi mooy Eumeu Sène ak Gris Bordeaux ku ne xam ne ne keroog Gris daa daanu mais waa Fass dañ ko ak waa Médina dañ ko teeru ndax façon ba mu bëree joxe na la mu am yëpp mais lii daal xam naa ne keroog ñëpp ko dundandoo mu doon làmb joo xam ne feet gi neexoon na stade bi fees na mais ñoom ñi waroon na bëre combat bu mujj bi ñoo joxewul la waroon a joxe mais bi ñu ñëwee gis nañu ne la dëgg euh, loxo mi dafa damm est ce que tamit loolu noonu gars yi waruñu cee xalaat en tant mbër war a bëree sa loxo damm nga ñëw nëbb ko di bëree waag moom nga loolu moom règlement sax koy tere ndax mais nee na bugul woon a yàq làmb ja mais daal xam naa ne daal euh, xëy na looloo ko téye mais daal nit ñi kontaan nañu keroog ci façon bi ñu bëree xëy na nag ma doon am blessure bu ndaw ñëw dóor ci mu yokk mais xam naa ne daal li ñu joxe ñoom ñaar keroog stade bi mujj na sax ñëpp a génn ñibbi te loolu ñu ko ci làmb. stade du jour boobu. waaw ah, ñu bëri dañoo génn ñibbi ñu bëri dañoo mujj génn ñibbi 45 minutes kenn jàpp jàppante sax amu fa loolu loolu kenn rafetlu wu ko mais xalaat nañ ne bu doon lu ñuy defaat duñ ko defaat ñoom ñaar. Mhm. kon yaakaar naa ne loolu leer na père lu mu wax ci combat bi mais duñ def rek duggaat ci beneen combat di Ama Baldé Modou Lô Ama Baldé Modou Lô parce que bi ñu ko gisee euh, face à face bi euh, ni nga ko gisee woon mu bari coow am na ñoo xam dañoo ñëw ba ci signature uh, mujjeewul am ñoo doon laaj tey combat boobu nan nga ko gisee ba xam am nga xel ko ni combat boobu mën na taxaw fii uh, dakaar fii Sénégal. da mën na fi xaj mais li yàq feet ba mooy njëkkee promoteur bi am na ci part de responsabilité. waaw xam na ne du combat yëpp ngay mën a def ci ay logo wu télé ay logo wu télévision ku ne xam ne ne am na mbër yoo xam ne seen ginnaaw dafa tànk te dañoo bari te duñ leen bàyyi ñoom rek ñu dem. ñooñu da nga leen yóbbu ci stade bu mag woo leen tàkkusaan jëm timis mu war a jeex wala même bu dee guddi it mu am service d'ordre bu doy nga xam ne bala ñoo dugg ku ci ne dañ la wan effectif bi dugg keneen du ko topp kenn du leen rax mais ñooñu boo leen ne am na mbër yu defoon signature ci benn télévision mën naa ko def Modou Lo ak Ama feneen foo ko defit mën naa demee noonu ndax mbëri seen ginnaaw moo toll noonu mais li am solo mooy rek nañ la yóbbu ci stade bu mag. service d'ordre bi doy ku ci ne ñetti nit yi la may moom ngay dugal su boobaa mën nañu sauver feet bi mais lii c'était trop risqué te it nag bu ñu dugaloon ñaari mbër yi ku ne dugal quatre personnes fans club bi dañu mën nañoo xeex ba mën na jur loo xam ne mën na yàq làmb ji mais est-ce woon ñoom ñu ñu woon woo mbër yi ak benn ñaari personnes ñu war a àndal parce que ni ko jooyee ko woote ñëpp ñëw taxaw foofu ba signature ñu am ci làmb ji tamit. kon déggoo ma wala da ngay gan ci làmb mbëri si yooyu commandé wuñu sax booy yi daanaka booyee leen commandé waaw parce que mbër mi bu fekkee ki lay supporté bu yoree vingt mille boo soxlaa dix mille yi mu jox la ko foo ne mu ne fa te bu dee jotee mu njëkk a dee da lay bëgg ba du la gëmee mënuñu gérer booy walaan toogal ci kër ga tooguma lañ lay wax lijjantil gan gi nga bàyyi ñu ñu gérer ñun ñu ñun ñu yëngal kon war ngaa xam ginnaaw mbër yi daa mbër yu mën a dem ñoom rek am mbër yoo xam ne fu ñu dem seen mbooloo topp leen mais yow miy organiser nag yaay xam dimension mbër yi ñu toll nga jël sécurité bu doy ba mën a sauver sa événement te lig ndaanaan la xam naa buy defaat beneen face to face noonu dina jël matukaay yëpp ndax li ku ne xam ne ne ku ku man man bés la te it nag gis nga Gris 2 ak Reug Reug muy doog a taxaw kenn gëmu ko mais def na ci liggéey boo xamante ne ni bi mu defee loo wax lu dul Gris ak Reug Reug kenn du la déglu kon daanaan la dañ ko bett mais boo liggéey du demee noonu. d'accord mais combat boobu yaakaar naa ne war nañ cee soxla sa xalaat. nan nga gisee combat boobu Modou Lô ak Ama Baldé. waaw li ma ciy wax lu gàtt rek mooy yàgg nañoo bëggante. maanaam bëggante gi mooy duñu génération magante nañ tuuti rek waaye Ama yàgg naa bëgg a bëree ak Modou am na combat bu lig organisé woon ci Mbour lig ko ne xam ne digganteem ak Modou Lo ay xarit lañu invité ko Ama ñëw bàyyi ko ba muy bàkk mu daw dëkk ko Modou Lo du sama du ma sa moroom ba ñuy bëgg a xeex keroog baay Baye Mandione moo futeeku ne Ama taxawal fii moom it jàppale jàppale jàppale jàppale Ama ñu ne bëri woon nañ ba Modou Lo daan ko Ama topp loolu làmb di dox nag mais kon Ama yàgg naa topp Modou mais moo am ñaari enjeu nag benn bi mooy titre roi des arènes bi ñuy xëccu beneen bi mooy Ama moment bi ko Modou Lo moment bi ko Ama di dëkk muy bañ ne ko defal say preuve mu bàyyi ba doon magam Eumeu seen doon roi des arènes ba pare jëlaat ko kon am na lu mu bëgg a wane bu ko neexoon na ko bëreegu maa yow defal say preuve ba ci kanam kon jëlul combat bi pour daanu Ama nag xale la boo xamante ne kuy bëreeg moom na ko bàyyi xel ndax moom mbër la ñeme na gëm na boppam ci wàllu mystique ñoom ñaar ñëpp ñu gëm mystique ndax Modou Lo werante amul ci ne boo gisee face to face boobu am ñee gàddu seeni chaise indi ko ne chaise bi la Ama di toog. kenn du ko jege Modou Lo day naan man suma sëriñ ne gaalaaj gi xëpp ko mbër sàngam même bu ñu ma doon sanctionné di dagg sama xaalis yëpp danaa la ko laalale lu ma ci góobee gar kon xam nga ko gëm na mystique ama it bu dugg see il la seul lutteur boo xam ne jël teel tànk bi dóor ci digg bi joxoñ public bi bañ xool ko mu jël loxo bi wane ko ci ngembali ne leen sama ngembali xaalis bu bari laa ci def kon kooku du fooye mystique moo tax mystiquement ñoom ñaar ñëpp dañuy pare beneen analyse bi nag ginnaaw ba jàppaguñu date bi ñuy xalaat mois de juillet ci état de forme yi ci ngay mën a wax nan nga gisee mais daal combat la boo xamante ñoom ñaam ñëpp bëgg nañ ko Ama doon xale bu ndaw juddu 90 bu daanee Modou Lo parce que dañ doon wax Balla Gaye 24 mu doon roi des arènes Ama bu doonee roi des arènes ci âge bi non loolu beneen affaire lay doon mu war koo gérer na continuer Modou Lo it du bëgg li dal Eumeu Sène dal ko ndax. Bombardier doon na roi des arènes ñaari yoon mais bu ci ne benn victoire la ciy teg rek dellu si ñàkk ko Balla doon roi des arènes moom it benn victoire la ci teg dellu si ñàkk ko Eumeu Sène doon roi des arènes mais tegu ci benn victoire prochain combat daa ñëw rek ñàkk ko contre Modou Lo kon Modou Lo du bëgg loolu da dal ko moo tax combat la boo xam ne dafa am enjeu ku ci ne am nga loo bëgg foofu daal ci laa yemagum ci combat bi. aussi tey bu ñu gisee làmb yi euh, comme ni nga ko waxee sànq Ama Baldé bu arbitre sifflé day dox sa kaw. Modou Lo ko xam moom ba arbitre day ñëw comme ñooñu naa bu ñu lan moo war a xew foofu. non li nga mën a mooy du mat ne Ama du la xaar mu fekk la fa. Modou Lo du day def ay feinte di corps te xeex moo lay wan ne xam naa ne daal euh, combat bu doy lay doon xalaatuma moom bul xalaat sax ay match yi la yooyu nag moom ndax Ama ndox du bàyyi yoonam loolu la jàngee bëre foo taxaw mu fekk la fa te Modou Lo day siisu boo ko sëkkatalee. bu riposte bu arrière ñaari yoon day riposte dëggal boppam te dañuy daje. mais Père comme ni ko waxee wàllu xeex bi nan nga ko gisee xeexu Modou Lo ak xeexu Ama Baldé. waa xam nga bu dee ci wàllu ni ñu ni ñu bëree ku ne xam ne ne Modou mu kawate na mbër Ama gisaguñ gisaguñ ko mu dóor mbër mu daanu mais loolu du dara ndax ñi bëgg a jël xeex bépp ne avantage yu Modou la nañ tey de ndax mbër mi gën a dangereux ci làmb ci nga xam ne ñëpp a ko moytu ndax bagaar bi muy Malick ñaa ama avant ma ko daan da ko kon moo lay wan ne xeexat la xeex bi bu ko kenn farale sa moroom ku ci dana nga sedd sa moroom cër. parce que gars yëpp ñoom ci xeex bi lañu ragalee Ama Baldé. waa déedéet non noo dañoo xamul rek dama la indil Malick Niang moo dàq bokk na ci ñi dàq xeex ci làmb ji te ñeme lool Ama da ko kawate da daan ko kuy bëri woon na ko bàyyi xel. te gaa yi dañoo xool sax kuu bi ko kawate mais xeex nañ ba jub saako yi àtte ah, gars yi àtte mu dóor ko fa remise bu dal ci Malick Niang kon moo lay wan ne fit mooy xeex te Ama na.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 mais dama bëgg xam maam euh, ma mbëri am yu am expérience yu muy dajal ku ci mel ni Papa Sow ak guy gi foofu laay waxee. ku mel ni sos nga dóor ko mu daanu. sos du n'importe qui ci làmb ji. ay Ama Baldé ñooñu ngi ci ku ci ne bëre nga ak sos pour àgg ci benn niveau bi sos du n'importe qui te du ko dóor mu daanu Zarko ubale lool mu ñëw daan ko kon moo lay wan ne si te xëyul rek ñu koy fay ni ay million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 waaw mais nag secret bi ñuy wax si Siteu moom dama ko wax ci émission du yomb daal laa koy wax. loo entraîné doyul. entraîné doyul. lu mu entraîné doyul ndax amul combat bu yomb Papa Sow du n'importe qui mën naa bëri man naa xeex bëri nañ komba lool am na jom waaw mais si tey nag du ñeexum ñebe du yomb daal combat bu neex lay doon. ok père yaakaar naa ni yaakaar naa ni euh, émission bi jeex na père kontaan nañ ci yow yomb li ñu yombal euh, pour ñu ñëw taxaw seesi la du ñu defee lu dul jox la rek nga tàggatoo. non di kontaan ci yéen rek taxawaay bi am na solo di leen ñaanal rek ca kaw ca kanam beneen ba li may conseil rek mooy fu ay nit ñàkk ànd ay bu bu bu ko daal du ngeen dugg ci ñu réeroo laaj kii laaj kale loolu dama koy conseil sama yenn fii si waaw nañ fexe muy nice rek teewul nit ñi dañ leen bàyyi xel waaw waaw di wax ca aspect sportif bi daal moo ma gënal beneen leneen lu ngeen dugg nag ngeen wax ca domaine booba. waaw mais di leen ñaanal gis naa ne bëgg ngeen ko te yéen a ngi ciy sonn leen ñaanal ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf. waaw mbokk internet Dakar ne di tey li leen leen andiloon ah, toog waxtaan ak Père Mass ko xam-xam ko ci làmb mu leen koy wax lu mu wax téere la moom mu waxee ci làmb ñëpp koy déglu parce que expert la waaw di ko ñaanal moom it gudd fan ak wér aussi tamit di gërëm sama gars yi ñoom Toumani waaw ak sama ndaanaan bi ak Ouzin gars yëpp maa leen di ok big up